une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay euh, nuyu bokki yëpp ci nuyoob lislaam bi ñu sunu borom tànnal subhaanahu wa taala di am mbégte nag ci jataay bi nga xam ne ñu ngi koy seq ak yéen tam doon jataay boo xam ne jataayub fàttaliku ak ñaan la jëm ci jëmm joo xam ne dafa doonoon kenn ci njabootu sëriñ Touba muy sëriñ Serigne Massamba yi ñu nekk fi nag ci daarul xadim fii ci daara ji madrasatu min allahil mahfuz tey di bisub ñaan bi ñu di ko ci fàttaliku di ñaan sunu boroom defal ñu ci li mu diggee ci fàttaliku nit ku baax waaye di ñaan moom it sunu boroom jotale ko ci mbooleem ñaan yi ci barke Cheikhul Khadim di am mbégte nag ci jataay bi nga xam ne ñu ko seq ak bokk ñu ko àndal muy As-Samadiyya ak euh, Mbacke Kadior ak euh, Rava TV ak Poroxaan la ñu Production Tawfekh Production kon ñeent ñooñu la àndal ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy am ci ci ndigalul nag euh, fondation bi muy Fathul Manaan ci benn tomb muy fàttaliku lan mooy cosaanul barab bii ñu nekk di daarul xadim daaru xadim ab gox la rek ci Touba ndax diggante pencum daaru xadim ak pencum pencum Touba buñ ko dee xool day toll ci sept kilomètres kon diggante bi sorewul ndax Touba day mel ne boo xoolee xibla gu nekk boo bàyyi ko ci jumaa ji da nga daw lu mat sept kilomètres yoo xam ne génn dëkk bi am na ci sa xibla yoo xam ne ëpp na loolu daaru xadim nag da koo féete wetu gànnaar boo jubloo penku boo taxawee jublu penku da koo féete wetu gànnaar ki ko sancoon ma Masamba Kan nii la tudd loolu nag daanaka mën nañu ne xaw naa àgg ci dayob li ñu tuddee tawaatur ndax li ko nettali ci ay mag mbooloo la moo xam ne ku ne xam na ni mënuñoo mànkoo ci wax lu wérut ba ci doomi Serigne Touba yi sax am na ci ñu ko daan nettali nga xam ne kon ci ndigalul Serigne Touba la ko sancoon sanc bi nag wax nañ ni moom ak Daaru Karim mi ngi ko féete sow ak Tindodi mi ngi ko féete penku ak Ndindi ma ngi ca penku Tindodi ñoom ñeent ñoo bokk benn bisub ndigal bu bàyyi ko ci Cheikhul Khadim ngir ñu sanc dëkk bii di Daaru Khadim loolu nag du sori 1913 1913 du sori foofu mi ngi sababoo yit ci sëriñ ma Masamba Kanni mii nga xam ne moo sañ ci Daaru Xadim ci la loolu sababoo bari na nag ay nettali yuñ ci nettali waaye man nag jëlee naa ci kenn ci doomi sëriñ Masamba Kanni yi muy sëriñ Ibrahima Bousso mu nettali mu nettali ma wax ne sëriñ ma Masamba xam nga moom naawel la feeña jamono moom sëriñ Masamba Kanni dafa façon yéene delluwaat nag di ko dundal ci bay ak jàngale ak tërbiya bi mu fekkee sëriñ bi njaareem di ko ci laaj ndigal sëriñ bi ak di sàkku ci moom ñaan sëriñ bi laaj ko lu yitteem foofa mu xamal ko ne dafa bëgg a dellu di wéttali soxna sa muy soxna astuwaalo ak di yar njaboot ga foofa ak di leen jàngal ak di fa liggéey maanaam di fa bay di mën a indi addiya wax nañ ni sëriñ bi ca la ko wooloo nag sëriñ ma Masamba Mbàkke sëriñ Muudu Moustapha sëriñ Fàllilu jox leen ndigalul ñu ñëw fii ci Touba dànd ko xibla gu nekk lu toll ci nàngami kilomètre ca nattukaay yi ñu daan natt ci jamono booba sañ ci fi ay gox yoo xam ne daañu fa nekk di fa jàng di fa jàngale di fa yar njaboot gi di fa liggéey tegal leen ci nag ne bu sama jumaa ji àggee ngeen di fa jóge di julli si ajuma wax nañu dolli woon na ci sax ne leen su ngeen ko defee danaa leen warlul dugub dugub bi suuna ak ndox mu ñuul boobu la leen jox ndigal daal cee teg nag wax sëñ wax sëñ Masamba ne ko Masamba na nga xam ne tànk buñ liggéey ci sama dëkk bee di Touba moo ma gënal junni bu bàyyi ko feneen fu dul moom <coughs> kon loolu liñ ci dégg rek mooy liggéey boo xam ne ni danga koy defee ci barab bii di Touba euh, yàlla mën na ci def barke boo xam ne dërëm ba mën naa gën a barkeel junni buñ liggéey feneen fu dul Touba kon loolu moo sabab sanc yi sëñ Massamba ñëw sanc fii di Daaru Xadim sëñ Massamba Mbàkke sanc Daaru Karim Eh, Cheikh Mouhamadul Moustapha sanc Tundóodi eh, sëñ Fàllilu sañc Ndindi ñeent dëkk yooyu nag dëkk bu ci nekk soo taxawee ca pénc ma diggam ak péncum Touba du sori set kilomètres te dëkk boo ci taxawit di seen moroom ma xëy na fi jamono toll nii nag ci dëkkuwaay yi tabax yeeg yi ci aju dem na ba loolu mën naa jafe waaye boo taxawaan daaru karim ci penc ma di seen daaru xadim boo taxawaan daaru xadim it ci penc mi di seen tundoo di boo taxawaan tundoo di di seen ndindi loolu day tegtale rek nosu gu barab yooyu nosu te lépp mu tegu nag ci ndigalul cheikhul xadim ndax moo leen jox ndigalul sanc waaye wax leen it distance bi nga xam ne moom la ñuy la moom la ñuy soree Touba moom lañ koy dànde ngir sañc kàddu googu mu leen ci tegaloon ci ne leen bu sama jumaa ji àggee ngeen di fa di julli si wax nañ ne Cheikh Mouhamadul Fadilu ginnaaw bi liggéey jumaay Touba àggee daana def bu alxames jotee mu gonte Touba dem fanaani ndindi su xëyee julli si ngir màggal ndigal loolu nga xam ne moom la leen sëriñ bi joxoon ci ne bu sama jumaa ji àggee ngeen di fa bàyyi ko di julli si kon sanc wi ci ndigal la ko sëriñ ma Massamba ni sañce am na it ay barab yoo xam ne ñoom la maaseel ab sanc te barab yooyu ndigalul sanc ga mi ngi bàyyikoo ci bis bii nga xam ne ci la sëriñ Massamba doon laaj ndigal sëriñ bi mu wooloo ko jëmb yu tedd yooyu nga xam ne ñoo bokkoon keppaar ga maanaam keppaaru Cheikhul Xadim ga mu jox leen ndigal ci ñu sanc ko sëriñ Massamba moom mi nag dëkkoon na fi ginnaaw bi ak njabootam wuutu nañ ko fi ndax sëriñ Maram Buuba moo ko njëkk wuutu ginnaaw bi mu fi bàyyi ko ginnaaw sëriñ Maram sëriñ Dame Bousso wuutu na ko ginnaaw sëriñ Dame Bousso sëriñ Cumbuleen buso wuutu na ko ginnaaw sëriñ Cumbuleen sëriñ Abdourahman Bousso wuutu na ko ginnaaw sëriñ Abdourahman sëriñ Ibrahima Bousso wuutu na ko ñooñu nag ñooy ñi nga xam ne jot nañ koo wuutu ci ay doomam nekk fi mag ci njaboot gi nga xam ne ko fi mag yaay yilif dëkk bi yilif njaboot gi ni mu baaxoo am ci yoonu murit ginnaaw sëriñ Ibrahima nag sëriñ Ahmadou Bousso Maram sëriñ Ahmadou di taawub sëñ Maram sëñ Maram di taawub sëñ Masamba mooy ki ko njëkk a wuutu ci ay sëtam ginnaaw sëriñ Ahmadou sëriñ Fallou Bousso di taawub sëriñ Cumbuleen Bousso mooy ki ko wuutu nga xam ne moo fi nekkandi nii kon ñoom ñi nga xam ne wuutu nañ ko te yàlla dogal ñu jiitu ak moom mi nga xam ne moo leen meññ ñu ngi ñaan yàlla yeesal yërmandeem ci seen kaw moom mi nga xam ne it moo ko fi wuutu te nekk fi di sëriñ fàllilu ñi ngi ñaan yàlla mu guddal aw fanam te dolli ko ak wér euh, ba lii mu ànd ak njaboot gi muy liggéey bu màgg bii nga xam ne mi ngi koy liggéey euh, fépp fu mu bëgg mu àgg fa sunu boroom àggale ko fu kawe njort ndax barab la boo xam ne euh, barabu yar la barabu jàngale la barabu liggéeyukaay la waaye nag lépp loo xam ne ñu ngi koy séentu ci bépp sanc boo xam ne dañ ko sancal lislaam boo ñëwee da nga ko fekk ci barab bii te mooy taalu taali ay taali jàngu da ko fi fekk ay néegi yàlla da ko fi fekk waaye teewul nag ñi ngi naal naal boo xam ne ñi ngi ànd ak moom di ko euh, di ca nab nabi te mooy jumaa joo xam ne dana jëmmal barab bi tey dana woyofalal coono yi ak diis diis yi ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ci gox yu bari gox yu sori bëgg a joxe ji farato ajjuma euh, ak ni jamono ji tëdde jumaa jooju nag ci la ñu nekk fondation bi moom yàlla dogal na àgg na ñi ngi ci élévation bi loolu it ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada néeg boobu ab néegam ab néegam la bokk ko kenn te tabaxuñ ko yit ngir kenn ku dul moom mu teg ci loxo ba nit ñéene mu mel ni mu mel nu kawe njort ndax néeg la boo xam ne dees ko songe pas-pas waaye du loo xam ne dañ ko dajale ba mu yem ngeen ñi di ko tabax waaye nag ginnaaw suñu borom nee woon ne ku dox jëm si ci man ma dox jëm si ci yow ku ku daw ku waaxu jëm si ci man ma daw gàttandu la ñu ngi soññi suñu bopp di soññi njaboot gi di soññi waa kër gi yëpp ak bépp soppe boo xam ne mi ngi dégg bépp jullit ñu àndandoo daw wuti suñu boroom ci néeg boobu ngir mu gàttanduñu ba néeg bi àgg ba mel nu raw na nga xam ne noon lañ ko bëggee tam doon néeg boo xam ne daañu ci yàgg a jaamu suñu borom te suñu borom nangul ñu jaamu yooyu kon daal bi moom barab la boo xam ne Euh, mooy sanc yi Sëriñ Tuubaa daan sañc boo demee la nga fa daan fekk nga fi fekk mooy ay taali jàng ay jàkka ay néegi yàlla fu ñuy yare fu ñuy jàngalee ak ay barab barabi liggéeyukaay ñoo xam ne buñ xëyee dem ca tool ya ñi buñ xëyee ne ca njàng ma ñi buñ xëyee ne ca njàngaleem xam-xam ma bu waxtu julli jotee ñu dem ci néegub yàlla ba joxe ji ko kon loolu mooy sancub daaru xadim bii euh, di barab boo xam ne nag euh, bokk na ci barab yi gën a tànneefe ci dëkk bi jamono ji ñu toll ndax yàlla dimbali leen ci yu bari mucc nañ ci Euh, kon nag li ñuy ñaan rek mooy lépp lu ab dëkk di soxla lépp lu ab dëkk di soxla yàlla na ko sunu boroom euh, xéewale dëkk bi di Daaru Xadim waaye lépp lu ab dëkk di bañ yàlla na ko sunu boroom musal projet boobu nga xam ne mooy projet Fawzeyni bi sëriñ bi doon ñaan ci Touba gi bi mu koy sanc ñu ngi ñaan barke boobee yàlla na ko yàlla wàcce ci dëkk bi di Daarul Xadim waaye jëmmi qualité doomu aadama bi nga xam ne it maanaam tibu nit ki nga xam ne moom la bi bëggoon ci Touba te boo demee ci matlabu chifa yi mën ko caa fekk ñu ngi ñaan nit ñu mel noonu it yàlla na leen yàlla dëkkale ci dëkk bi nga xam ne mooy Daarul Xadim kon ñi ngi sant bokk yi nga xam ne it ñoo sàkk woon ñu yëkkati kàddu yi ci kanam bokk yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool muy As-Samadiyya TV naka noonu Rafa yi Rafa TV naka noonu euh, Tawfekh TV naka noonu it Mbacke Kadior TV kon yooyu mooy jumtukaay yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon yéen ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu yëkkatil leen boppam ba lii nga xam ne yéen a ciy yëngu kenn ku ci nekk mu àggale la foo xam ne benn jumtukaay bu mel ni mësu fa àgg ci kaw suuf loolu lu yomb lu yomb yàlla la wa ma dalika ala allahi bi aziz yàlla mën na lu ne kon nag ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def leen ci ak yokkute boo xam ne da ngeen ko yëgal seen bopp def ko mu nekk jumtukaay yoo xam ne jumtukaay yu xidma lay doon yoo xam ne dafay liggéey lislaam di leen sant di leen jaajëfal di ko jaaral nag ci turu euh, sunu waajur wi nga xam ne moom ngeen àndal muy sëriñ Abdul bu Bousso mi moom sëriñ Abdourahman euh, di jàmbaar ci liggéey bi waaye di jàmbaar ci kër Sëriñ Sàmba Kanni gi di sunu baax di sunu wëlëri di sunu lépp kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi jaarale cant googu ci kàddoom euh, di leen ñaanal bu baax a baax a baax waaye di fedd feddali waat ci kóllëre gi bu baax nag tey ñaan yàlla mu sàmmal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa qalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba bu baax a baax di siyaar ak nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général di murit di ko koy ñaanale Cheikh Mouhamadul Fadal xalifa Serigne Massamba Kanni suñu borom defal ko gudd fan ak wér. ak taw tawféexi sëñ Massamba Kanni ba lépp loo xam ne am na yéene liggéeyal ko sëñ Massamba Kanni ci dëkkam bi ak ci njabootam gi suñ borom defal ko ci lu kawe njortu lool te mu ànd ko njaboot gi yëpp di siyaar mbokki taalibe bi yëpp di leen baalu xaq tey baal xaq ñëpp nag di am mbégte rek ci bis bi màgg bi ñu nekk muy bisu fàttaliku sunu jàmbaar ji ma Massamba Kanni ak bis boo xam ne tam bisub siyaarante la ak bisum ñaan di ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko suñu borom nangu ko te jotale ko ci yiw bi dafa ñu ko ñun tam muy suñu texe àdduna ak gu àllaaxira di sant itam mbooleem wóllëri yi teew si yëpp ci jataay bi ak mbooleem mbokk yi nga xam teew si nañ ci ak ñu amoon yéene teew ca suñu boroom dogalu ko di sant itam taalibe yëpp di wax ne rek bis bi day bis bu màgg lool bis bu am solo ndax dañ ciy fàttaliku ku mata a fàttaliku muy sëñ Massamba Kane sëñ Massamba Kane nag xamle ko daanaka yàgg na luñ koy jàllale ci jataay yi xam naa ne ñu bari xam nañ ko ngir gàttal rek ak njëkkalante di wax ne daal doomi sëriñ Bousso bi la doy na sëkk ci ab xable ñu mën koo xam di doomi soxna Kani Mbàkke dox ne doy na sëkk itam ci mën koo xamle waaye nag nekkoon nag taalibe Serigne Touba tey jii nag ñu nekk ci dëkkam bii di Daarul Xadim di ko ci fàttaliku ngir ngërëm lu mu amoon ci Serigne tubaa ak itam tawfeex yoo xam amoon nag ci Serigne Touba yoo xam ne nii ak jege ko ak nanguloon ko ak déggloon ko ak toppoon ko moo ko mayoon la mu am bis bi sabab bi mooy keroog guddi gàmm ga ko Serigne Touba woye woon wan ko rasulullahi sallallahu alayhi wa mu bokk ak moom mu ñetteel leen ci am néeg ci guddi gi xaajee ba ca fajar ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam door a tàggatoog Seexul Xadiim bis boobee la ñuy fàttaliku tey jii di ñaan mbooleem loo xam amoon na ko ci ay ngërëm rek suñu boroom defal ñu ci ñantam ñu am ca lu faaxoo suñu njort ñun ñëpp xanaa di wax ne rek Cheikh Mahamadul faadal mi nga moo ko fi nekkal tey di ko ñaanal suñu borom àggale ay naalam ak i mbébétam ak i yéeneem ci taxawaayam yu rafet yi nga xam ne mi ngi koy am lu ci mel ne dëkkam bii nga xam ne sëriñ Touba moo ko fi joxoon digal mu sanc ko ca dëkk bi tey ku fi ñëw danga nga xam ne na mu meloon bu njëkk ak fii mu agsi tey am na ak soppi ko lool lool lool bis bi itam nañ ko daan tàmbalee ak fii mu toll tey ku fi ñëw da xam ne am na ak wuute lool ak yokk gu mag a mag am na fi loolee waraloon Serigne Mouhamadul Fadal sumbaloon na fi Serigne Massamba Kanni ci liggéeyu Serigne Touba yi benn ci liggéey yi muy daara ju mag ak jumaa ju mag mi ngi fii ci penc mi daaw la ñu tegoon xeer wi ku fi dikk daaw ak ren da xam ne liggéey bi yitteel na ko waaye itam fonk na ko lool te ñor na ko waaye nag noonu la ko ànd njaboot gi yëpp ak mbooleem jullit yëpp ndax ku fi ñëw tey danga xam ne du liggéey bu ndaw waaye fa mu kawe fa mu àgg yitte tax mu àgg fa yitte yooyu nag ñu ñaan suñu borom defal ko tawfeex ba sottal ko ba naal yeneen naal te mottali ko noonee itam nag la amee yoo xam ne ni sax xam naa moom foofu la ñuy gën a jublu suñu waxtaan mu yi nga xam ne toujours mi ngi koy fàttaliku di ci bàyyi xel njaboot gi ci yërmaane ju ma am ci ñoom ak itam ni mu bëggee taxawu leen ci waaye nag mu ci am wàll woo xam ne xëy na ci yeneen loxo la mën a bàyyi ko muy li ci mel ne ci état bi ak ñi nga xam ne wàllu woowu muy ci mairie beeg yëpp. ndax dëkk bi ko gis xam ne li fi dëkk ci aw nit population bi ñu mu toll bar na ay soppeeku yoo xam ne war na fi am ak ay yokk-yokk yoo xam war na fi am te naam amagu fi Serigne Fall nag guddeeg bëccëg suba ngoon mi ngi ciy dox ànd ko njaboot gi li ci mel ne ab hôpital soxla nañ ko fi wala poste de santé boo xam ne ku jug dana jege nga gaaw fa àgg waaye itam naal bii mu naal muy jumaa ji ñu ànd ko moom di ñaan suñu borom àggale ko. waaye itam yokkuteem ndox mi ba foo xamee ak sañtaan nekk na fa mu àgg fa nga xam ne dana jàppane ci moom ndax taalibe Sëñ Tuubaa fu mu nekk xéewal la fa war a gis nooflaay la fa war a daj waaye waru faa dundub coono te ku ne xam ne nag jamono ji ñàkkum ndox ak jafe-jafe ñàkkum ndox ci biir Tuubaa moom yaatu na lool kenn du ko wax kenn lépp luñ leen ci dimbalee doyut loolu nag ñu ngi sàkk mbooleem koo xam ni loolu sa ci sa loxo la nekk nga war leen cee taxaw ñoo ngi fàttali dëkk bii ci dëkk Sëriñ Tuubaa yi la dëkk bu Serigne Touba joxoon ab taalibeem ndigal mu sanc ko la ca ndigal la itam nam ko joxe woon Cheikh Mouhamadul Fadal joxe woon ko Cheikh Modou Moustapha jox ko ma Massamba Mbacke noonu la ko joxe woon Serigne Massamba Kanni mii muy Daarul Karim Daarul Xaddim Tindoodi ak ak Ndindi te sababu jox gi ndigal itam nag ci seen Serigne Massamba Kanni mii la bàyyi ko woon kon ñooñu ci ndimbalal Serigne Massamba Kanni ak baaxub Serigne tubaa ñoom tam ci lañ jotee ndigal kon lépp luy yokk ci dëkk aajo nañ ko ci dëkk bi. fexe itam ba foo xamee kër nekk na fa courant bi dikk ba jéggi ko lu ñu yitteel la lu ñu ñor la te njaboot gi yëpp ñu ngi koy sàkku ndax mett na lool nga nekk ko njaboot foo xam ne boo xëyee suba da ngay daw yi loo leen dundale te jamono neexut boo wàccee xaaju guddi ngay jur di wutim ndox loolu wax dëgg ku leen ci mën a taxaw taxaw nga sëñ Tuubaa ci taalibe mi courant bi itam fexe ba muy leer ci seen wet ndax jamono ji neexut insécurité bi am ci dëkk bi bokk na ci li ko gën a mën a fànq muy ak leer goo xam ne fu waaye toll bu dee def aw ñaawteef des na ko mën a gis bu lëndëmee nag day waral insécurité bu gën faa bari fexe itam ba sécurité bu gën a doy ci dëkk bi itam loolu lu ñu aj aajowoo la waaye tam nag fexe ba taxaw ci yar njaboot gi ci njuumte yi nga xam ne ñi ngi koy def ku nekk dellu si sa njaboot toppee ko ndibalal sëriñ Muntaxa li nga xam mi ngi koy joxe ci dëkk bi te lépp di ndigalal sëriñ Tuubaa te bëgg ci dëkkub sëriñ Tuubaa gën a jag rek la bëgg naam jag na ba noppi waaye ku nekk ku fi ñëw ku nekk am ci war a liggéey loolu moo seen taxawaay sëñ mos sëriñ Fàdilu Buso mi nga xam itam ak njabootu sëñ Masamba Kanni gi yëpp nekk fii ci Daaru Xadim noonu lañ koy sàkkoo ci mbooleem koo xam ne seenub dëkkandoo nga ndax Daaru Xadim yi la bokk la ci lañ fi liggéey kër sëñ Tuubaa la jëm ci lu jëm kër sëñ Tuubaa nag wurta sell wurta wurta taq wurta nax sell rek la war a def kon nag ku fi nekk war ngaa defar sa jëmm defar sa njaboot ba lépp loo xam lu neex sëñ bi la buñ yeewoo di leen ci gis waaye lépp loo xam itam lu naqar sëñ la buñ xëyee kenn bañ leen caa gis ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer